nga ne tul bi tul bi mhm. ñaar yi la la waxon mhm. dama koy bindi waaw suma tayalul mhm. suma yakamte sungu bi la la jox sungu bi sat juróom-ñaari fas la suma la ko tege ni rek ni ni waaw ni rek tul nga dagal sama Dom Usman. gis nga Hey! علي بابا kumba هاي وي وي وي doy na doy na doy na gis nga fooy bi tamit même sauce allahu akbar tey fooy bi rek tul tul mais xanaa foo léegi fooy bi noo koy def fooy bi ndombo la ñaari bakkan fooy bi da nga koy def ndombo ñaari bakkan tul rek tul ci kaafi ali baba